Euh, ci seen beneen actu du jour ami internet yu 24 actu yu bàkk ba jibati jibatina ñu waxtaane tey daayira boobu la ñu duppee mu Muxaddamatul Xidma nekk daayira bi yore lépp lu jëm ci organisation ci jumaa ji euh, ci kàddu Serigne Abdou bu sa Makhtar tey jii nag doon na amal ab waxtaan foofu foofulee ca jumaa ja di wax rek ci matuwaay yi nga xamante ni jël nañ ko jëme ko ci màggalu ko ren jii dinañ door seenub liggéey bu premier safar gi dikkee lépp loo xamante ni dafa jëm rek ci set setal dinañ ko def xamante ni moo di ay lamp ak yàqu-yàqu yi nga xamante ni war nañ koo defaraat ci biir jumaa ji ren jii nag ak coppeeku gu metti am ci màggalug 2020 gi li ko waral rek di mbas mi lëmbe mim réew di Covid 19 nee nañ nag dinañ def seen kéem kàttan ba sàmmonteek li nga xamante ni kër docteur digle na ko ñu jëmale ko rek ci jumaa ji ba loolu tax ñu yokk effectif bi ngir saytu gi gën a mën a jaar yoon ba tey rek ci kàddu yi sëriñ Abdoulahat Maxtaar moomule wàllum kër docteur yi tamit a baax dinañ ay médecin dugal ko ci jumaa ji ngir ñu mën a saytu bu baax a baax wér-gi-yaramu doomu aadama yi ba tey rek ci waxtaan woowu woowule sëriñ Abdou Lahad Makhtar mi ngi lancé nag ab appel jëmee ko ci nag taalibe yi ngir ñu jàppale leen ci lépp loo xamante ni nii moo di ay gel eau de javel ak masque yi ak yeneen ak yeneen yu ni mel wax nañ tamit jëm ci li nga xamante ni moo di plateau télévision yi daan am ci booru jumaa ji ndax da daan indi li nga xamante ni nii nag moo di rassemblement te gis nañ ne jamono ji du jamonoy rassemblement ndax mi lëmbe mim réew di Covid 19 ba tax rek ñuy wax ne yooyu la plateau ren ji duñ ko amal lii daal bokk na ci liñ gën a waxtaane tey ci ndaje moomee nga xamante ni doon nañ ko def jano ko taskatu xibaar yi mu di waa daayiratu muqaddamatul xidma doon indi ay leeral jëmee ci màggalu Tuubaa ak coppeeku yi nga xamante ni nar nañ ko cay defal ren jii ñu wax ci leneen ginnaaw ay fan yi ñu génn ñu nemmeeku ay taw yu metti daal di jur ay dégâts ak ay gaañu ak ay kër yu seen boroom ñàkk ba askan wi doon xaar njiitum réew mu Sénégal jàppale leen ba tax démb si talaata ji ah, kii di président de la république ah, di Macky Sall ah, daal dinay génn amal ab réunion d'urgence ca palais ba ci ay kàddoom génn na lu tollook fukki milliards ci biir fukki milliards yooyu nag trois milliards yi da koy daal di jël jox ko ñi nga xamante ni ñoom la yëf yi laal sept milliards yi nag da koy daal di jëmale ci ñi nga xamante nii mooy waa ONAS ak sapeur pompier ngir ñu jënd ay matériel ngir ñu xeex mbënd mi waaye Aïssatou Diop Fall nekk journaliste ca TFM daal na yëkkati ay kàddu jëme ci 10 milliards yooyu nga xamante ne nii njiitum réewum Sénégal génne na ko jëme ko si mbënn mi nee na boobu som lan la mën a faj te nee na li ko gën a métti rek mooy bu dara xewee rek ñuy wax aide alimentaire mel ne askan wi dañoo xiif ba tey si ay kàddoo moom ay Diop Fall nee na Marème Faye Sall il faut mu arrêté ndax warutoon a dem ndax faluñu ko jëkkëram lañu fal muy président Macky Sall dafa waroon xaar ba Macky dem ba pare mu soog a dem waaye nee ki nga xamante ni moo di Marème Faye Sall dafa modeste te heure bu dee dem euh, di woo ay caméra loolu nekkatul modeste ngistal la na moytu nag ñi koy xelal ndax dañ koy yàqal ki yëkkati yooyu le kàddu moo di ay Aïssatou Diop Fall ñu wéyandi wax ci leneen maître El Hadj Diouf nekkoon démb invité Pape Cheikh Diallo daal dinay tàkkale sévèrement ki nga xamante nii moo di usmaan Sonko nee na dafa bëgg nax askan wi ba jël réew mi ndax nee na day sàcc ay suuf te loolu yëpp ko weddi moom yóbbu ko ci yoon dina leeral lépp ndax da doon def ay enquête ci moom ba tey moom maître El Hadj Diouf daal dinay wax tamit ci coowu troisier mandat bi nee na ñii dañ ñoo yàpp nee na xanaa kon mandat bi weesu échauffement la woon nee na entourage bi wër ki nga xamante ni moo di njiitum réewum Sénégal war nañoo bàyyi liñ koy gëmloo nee na bu ko kenn dugal si di wax waxeet te loolu du yëfi gor ndax loolu yëfu ñàkk jom rek la ba tey daal dinay wax tamit jëme ci li nga xamante ni moo di màggalu Touba gi ndax bu ñu seetloo rek génnoon na wax demul Touba waaye tey jii la ko gën a firndeelaat nee na moom demul màggal ndax dafa corona nee na tamit askan wi gëm ne corona am na ndax moom jaloon na ko nee na Touba la dëkk te mbàkke mbàkke yu bëri ay xaritam lañ nee na kenn du si man dara ci décision bi nga xamante ni jël na ko ne moom demul Touba nee na nag ñi nga xamante ni ñi ngi commenté ci réseaux sociaux yi ci li nga xamante xamante ni wax na ko ne demul Touba nee na ñoom ay dof lañ ñu daal di wax ci leneen ci diwaanu Touba lañuy ñuy jubali la ñu fa nemmeeku mooy ab xuloo bu amoon ci diggante aaw ak ñaareel ba aaw bi door wu jëm ba mu nekk urgence maanaam ci diggante dund ak dee yëf yi nag mi ngi amee ca quartier Sam ca Touba ba ndaw si wu jëm door muy ñaareel bi ma nga ca hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba buñ sukkandikoo rek ci source A buñ sukkandikoo rek ci source A bu tey jii ci àllarba jii aaw bi def yëf yi defeere nañ ko ci altine bii ñu génn ñi teg loxo nag ndaw soosile moo di waa brigade de recherche bu Touba ñu bàyyi rek yëf yi wéy ni ba xam fan la wànnent ah, di mujjee ki gëtëm ñu jeexale ko beneen beneen ñaawteef buñ duppee tentative d'assassinat Ibrahima jàlloo am lu toll ci fanweeri at moo doon jéem a rey jabaram da koo dóor lu toll ko fukki coup de maanaam fukki jam-jamu paaka buy sukkandikoo rek ci L'Obs waa ji dafa soupçonné jabaram dafa infidèle maanaam yemul rek si moom waa ji nag yoon teg na ko loxo ba tëj na ko lu tolloo ko juróomi ati kaso lii rek moo fi ruusandi woon ami internet yi dig dajale doon ba ëllëg ak jàmm.